dama ànd sama benn xarit tey Anne Marie Gomis mii du julit ji njabootu yonent yàlla Isaa la bokk bëgg sëriñ bi ma jeex ci moom lool ne ma faw ma gis sëriñ Abdou Karim ñu ñëw ku baax kii sëriñ Fallou Diatara mii ne ci njabootu yonent yàlla Isaa la bokk sëriñ Abdou Karim bëgg ko bégal xam nga lu mu njëkk def woo benn woo kenn ci donga yi ne ko génneel ma photo photo Jésus Christ bi photo Jésus Christ moom la génne ne ko ne ko Jésus ngi nii Isaa ngi nii Anne ànd xel mu dal xam nga ku ñëw di la siyaare si bokk njaboot yàlla Isa nga génne photo Jésus Christ pour war ko ne ko fii ñëpp fi ne fii daal xam nga lu fi am la sëñ Fallou waxoon maay Sénégal fii mooy Sénégal bala Isa ni ngay doxi yéeme na ni ngay doxi yéeme na noo ngi ñaan sa fun gudd yàlla defala la ba ngay nekk Ndakaaru di yëngu nun ay gone la ñu woon boobu daan nan topp ci gone yi nga xam ne ñoo daan nekk sa keppaar yooyu am ñoo xam dañu doon daw waaye tey ñoo bëgg nu ne mel ni ñun bëgg nu mel ni ñoom géejewaay yëmbal waxi naan nimsaat benn barab la woon nun bokkoon nañ ci gone yi daan ñëw ci sa keppaar googu di naan café nit ñi duñu daw dinu moytu naan ki ngeen topp du leen jëmale fenn waaye tey am na ñoo xamante ni jóge nañ Ndakaaru bëgg ñëw fii bëgg laa gis mu xat lool te moo ne démb ñoo ne woon déet waaye yow doo topp kenn ci lenn moom daal ñoo ngi ñaar suufan gudd yàlla defal la tawfiix damaa bëgg nag roy ko